taala wa barakaatu bis bi nga xamante ni mooy nisfu Shaaban di bis bi nga xamante ni ginnaaw bi Serigne Touba tàggatoo ak taalibeem ba rakkam ja loxol ndey jooram la fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett doon le 10 août 1895 dem ci géej gi def fa juróom-ñaari at ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett bu dee ci ati gàddaay gi kam mu bàyyee loon njaboot gi cheikh moustapha el kérim cheikh mahamadou fadal mbakke cheikh mahamadul amin ak sëriñ sidi ahmed mi magi soxna moominatu bintul xadim fukki fan ak juróom ci la ñu gisantewaat doonoon le 16 novembre 1902 may wax ni chahbaan day weeru yoonu murit daf noo doyoon sëkk sëriñ tuubaa feeñ ci waaye sang bi nga xamante ni moo njëkk a wuutu ku te wax ni moo indi raay bi moo fi def jumaa ji moo indi Cheikh Bamba ci biir mooy waa ji ñetti fan ci weer wi la tànn weer wi nga xamante ni mooy baraxlu di Shahbaan moom Cheikh Moustapha El Karim am na ñaar ci ak njabootam ci weer wi lañu feeñ am solo joo xamante ni bii euh, mi ngi xewee ci njabootu Cheikh Moustapha El Karim sëriñ Moustapha mi nga xamante ni moo toog toogaayu sëriñ Mbakke Mouhamed dafa jox ndigal sëriñ Abdou Jamil Mbegere di sëtub sëriñ Mahmoud Mbegere ngir mu am liggéey boo xamante ni dañ ko waroon a def mu jëm ci way waajuram di Cheikh Abdoul Ahad Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma ak Soxna Bali bintu yaa xafaara zunub Cheikh Sidil Makhtar mu teew fi nag sëriñ Mouhamadou Mahfous di. ki nga xamante ni bii mooy kilifa jataay bi ki nga xamante ni li tubaab di wax réceptionné jëf jooju moo ko war a réceptionné ngir ma bañ a guddal nag ki digle ngir ñu liggéey ko ak ki ko liggéey euh, sëñ Moussa Ka dafa wax ni diggante Serigne Touba ak borom Daaru Muxti dañuy cereeg sëb jaxasoo ca baawoon seen mbire jiitu ñile jiitu ñaawoon kon dañuy tënk rek ci diggante Cheikh Moustapha El Kérim Serigne Mahmoud Mbegere ba ñu xam ni euh, Serigne Moustapha Ndiagne bu santee loolu euh, njabootu sëñ Mahmoud Mbegere euh, loolu def na lu ko war li ko waral mooy Serigne Abdou Jamil mi toog way juram Serigne Mahmoud mi ngi ko tuddee Serigne Adama Sall ndax borom daaru bi mu sañcee pàkk bi en 1912 Serigne bi dafa am ay mag ñooñ da leen woon dem leen wettali ci Cerno mbokk na ci ñooñu Serigne Mahmoud mu ñëw sañ ci Mbegere 1913 Serigne Adama Sall sañ ci Ndangu keroog bii ndaw li ñëwee ni ko Serigne Touba nee na nga dem wetti li ci Ceerno dafa daal di jóg rek solu daalam dañoo takk fas wa dab ko Cheikh Mahamadou euh, euh, Lamine Gueye euh, Firdawsi mu baax ma sañ ci sëriñ Gueye Serigne Massamba Diop Sam sañc ci Daaru Diop gi Serigne Mahmoud yàlla dogal en 1933 mu nekk ci tawat way wayjuru Serigne Jamin wi toog mu woo ko ni ko kaay ma yónni la ci Cheikh Moustapha Taïf boo demee mu defal ma ay ñaan keroog ba muy dem ña ko sant woon njaq yi nga xam ne dañ koy tabax di ci seral ndox moom la ñu yóbbaale yàlla dogal ba mu demee ci Cheikh Moustapha ca suba sa ki doon tàgge Serigne Mahmoud fekk ko fa ñu ni Cheikh Moustapha sëñ Mahmoud kat sunu borom jëfandikoo na la ko soob ci moom euh, way juram di sëriñ Adama ni Cheikh Moustapha ndax dama la koy indil Cheikh Moustapha ni ko ah sañu ma koo laaj de ndax bàyyi cer la waaye boo ko indee ñu denc ko fii mu ni ko maa ngi dem waaye booba Taïf ak Daarul Muxti sore na borom daaru Muxti ñu fekk ko koso ni ko sëriñ Mahmoud Mbegere wàcc na ab liggéey moo jógee koso ñëw laaj ko fee ca béba fa nekkoon ni leen néew boo xamante ni fa mu nekk ku mu fa fekk nga texe ku ko fa fekk texe fii laa koy denc ñu denc ko te booba sëñ Adama Mbegere way juróom egseegut ba muy ba muy egsi la seen nit ñi bàyyi ko ci barab yi jëm Mbegere mu daal di fi bàyyi ko dem dëkk ji ak Cheikh Moustapha El Kérim ba bi mu waree moom Mbegere ci la dellu siwaat kon jàpp naa ni Cheikh Moustapha su jëlee ndigal jox ko sëriñ Abdou Jamil def na lu ko war ndax ndigalul sëriñ Mahmoud ginnaaw sëriñ Touba mi ngi doon bàyyi ci Cheikh Moustapha al Karim jëmm jii teew nag di sëriñ Mouhamadul Mahfouz xafara zunub Cheikh Sidin Makhtar sëriñ Cheikh Awa Balla di ko ziyaare magam ji fi bàyyi bu yàggul jàmbaar yi sëriñ Touba ja awakaab yoonu murit di sëriñ Modou Makhtar Mbakke mbokk yi kon liggéey boobu moo yegg ñu war koo teg ci loxol sëriñ Abdoul Ahad Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke gaynde Fatma waaye ci teewaayu kilifaam mi nga xamante ni moo koy réceptionné di Serigne Mouhamadou Mahfouz ñu ñaanal euh, Serigne Mouhamadou Mahfouz sunu borom may ko fan wu gudd ak wér yaram ak njabootu yaa xafar zunub Cheikh Sidil Mokhtar gépp waaye Cheikh Abdou mi di Cheikh Abdoul Ahad nuy ñaan ci darajey maamam yu tedd ya di Serigne tuuba ak borom Darou Mouhty sunu borom may ko fan wu gudd ak wér yaram te musal ko ci am ndog. maa ngi leen di nuyu bu baax. sëñ Modou Mahfous nee na mu ngi leen di nuyu bu baax di sàkku ci yéen ngeen jottali ma sama nuyoo ak samay cant sëriñ bi nee na mu ngi sàkku ci yéen ngeen jottalil ko ay nuyoom ak ay cantam ci Cheikh mustafa Mohamed Mbacké ci Cheikh Moustapha Mohamed Mbacké ci dundal gi mu dundalaat cosaan ci dundal gi nga xamante ni Cheikh Moustapha dundalaat na ko cosaan di jëf joo xam ne nee na di jëf joo xam ni daf nuy fàttali yu bëree bëri daf nuy fàttali yu bëree bëri ndax li sababoon soxna may mun a Mbàkke jóge Daarul Manaan dikk Daarul Muxti nee na li sababoon way juróom soxna Maymuna bàyyi ko Daarul Manaan ñëw Daarul Muxti Cheikh Moustapha mu tedd ma ci boppam nee na Cheikh Moustapha mu tedd ma ci boppam moo ñëw darul Manaan moo ñëw daarul mënaan ni ko bu tey doon démb ni ko bu tey doon démb njabootu sëriñ bu jigéen gépp dañuy nekk fi sama wet njabootu sëriñ bu jigéen gépp dañuy nekk sama wet daarul naan sori na daarul mënaan sori na dama la faa bëgg a toxal dama la faa bëgg a toxal indi la fii ci kër sa baay Cerno indi la fii ci kër sa baay Cerno ndax nga gën maa jege ndax nga gën maa jege fekk booba la borom daaru di soog a làqu nee na jamono yooyu la borom daaru muuti di soog a làqu 1943 1943 bi Cheikh Moustapha dikkee fii bi Cheikh Moustapha dikkee fii fekk na fii ci kër borom daaru loon fekk na fii ci kër gu mag gi la bokkoon di kër borom daaru waaye nag sëñ moo daaw ball sunu waajur ba waaye nee na Cheikh moo daaw ball la moo ko féete woon seen waajur ba moo féete woon barab bi Cheikh Moustapha xamal sëñ moo daaw ball ne ko Cheikh Moustapha xamal sëriñ moo daaw ball ni ko soxna may Maymuna mii damaa bëgg mu jege si. soxna may Maymuna mii damaa bëgg mu jege si. jege ma lool jege ma lool. suñu Modou Balla suñu Modou Awa Balla ne ko. ma <clears throat> Mamadou Awa Balla ni ko. kon nag sama kër bopp gii ma nekkoon. kon nag sama këru bopp gii ma nekkoon. mooy fi suñu Abdou Khoudous dëkk. mooy fi Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké dëkk. kon naa ko jox foofa. kon naa ko jox kër googa. mu nekk loolu baax na rafet na lool. Cheikh Moustapha ni Cheikh Abdoul Khoudous loolu day baax na rafet na sëñ Modou Awa Balla ko ah safurla sëñ sëñ Modou Awa Balla Cheikh Moustapha ni sëñ Modou Awa Balla loolu day baax na rafet na waaye nag damaa bëgg mu dugg fii ci biir kër baayam kër Thierno Birahim gii waaye damaa bëgg mu dugg fii ci kër baayam Thierno gii ca la ko sëñ Modou Awa Balla daggale kër gii ci la ko Cheikh Mamadou Awa Balla daggale e kër gii loolu mooy cosaanul kër gi loolu mooy cosaanul kër gi tey kon nag bu ñu doxee kon nag bu ñu doxee ba sëtub Cheikh Mouhamadul Moustapha. ba sëtub Cheikh Mouhamadul Moustapha. ñëwaat yeesalaat lii. ñëwaat yeesalaat loolu. ñun ñii njabootuk soxna Maymuna Mbakke. nee na ñoom ñii njabootuk soxna Maymuna. dañuy fàttali jëf yooyee. nee na seen xel day dellu ci jëf yooyee. nga xam ne loolu tubaab na asaar la. nga xam ni loolee tubaab bi di wax naan hasard la. nga xam ne lii du hasard. lii lay moom du hasard. ndax lépp ngi soqeekoo ci jëfi Cheikh Moustapha. ndax lépp mu ngi soqeekoo ci jëfi Cheikh Moustapha El Karim. ak yërmandeem ci njabootu Serigne Touba. ak yërmandeem ci njabootu Serigne Touba. bi yàlla bi yàlla dogalee soxna si wàcc ab liggéey. soxna Baali mii sunu kilifa di taawam. soxna Baali bi doon seen kilifa di taawam. tabax bi soxna may dëkkee woon. tabax bi soxna si dëkke woon moo nekkoon fii moo nekkoon fii nga xam ne 1955 lañ ko fi def nga xam ni tabax ba 1955 lañ ko fi def bi nuy yéwénal mbirum soxna si nee na bi ñuy toppatoo gannaaw soxna si tabax boobu ci boppam tabax boobu ci boppam di fii nu toog muy fii nu toog féete ci soxna Bali féete ci soxna Bali loolu di beneen cër nee na loolu itam di beneen cër kon nag Cheikh Moustapha Mohamed kon nag Cheikh Moustapha Mohamed fàttali nanu jëfi jëfi maamam ji Cheikh Mouhamadou Moustapha fàttali nanu jëfi maamam ji Cheikh Moustapha El Karim xam ne jëfal na ko Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne jëfal na ko Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma jëfal na ko Cheikh mo Cheikh Cheikh Cheikh Mouhamed Mbacké Taïf nee na jëfal na ko it Serigne Mbacké soxna loo Taïf waaye nag jëfal na ko soxna Bali waaye jëfal na ko soxna Bali muy léppam ci muy lépp ci moom muy lépp ci moom kon nag bu ko Cheikh Abdoul sàkkoo ci moom nee na kon bu ko Cheikh Abdoul Ahad sàkkoo ci moom mu jëfe ko jëfin wu rafet wii mu jëfe ko jëfin wu rafet wii di jëfi Pastef di jëfi Pastef di jëfi yéene di jëfi yéene wóor na ma ne wóor na ko ni maamam yu tedd ya gërëm nañ ko ci maamam yu tedd gërëm nañ ko ci kon nag noo ngi feddali li ñu seq ak moom lépp mm, sëñ Modou Mahfouz nee na mi ngi feddali li ñu seq ak moom yépp di ko ñaanal bu baax. nee na di ko ñaanal bu baax. ci barkeb Cheikhul Khadim. ci barkeb Cheikhul Khadim. ak barke borom Darou Mouhty borom pàkk bii. ak barke borom pàkk bii di borom Darou Mouhty. mu àggale yéenay waajuram wépp mu àggale yéenay waajuram Serigne Mbacké Soxna wépp ak yéenay maamam yëpp. ak yéenay maamam yëpp. te daje si ak seen gërëm bu baax. te yàlla dajale ko ci ak seen gërëm bu baax. am na yàqin ne dana ko ci am incha allah. te nee am nañu yàqin ci ne dana hmm. leen seedeel rek sama cant. nee na mu ngi leen di seedeel ak cantam. ci sama taaw bii di Cheikh Abdoul Ahad ci taawam bii di Cheikh Abdoul Ahad ni mu làqee ngërëmul waajuram di soxna Baali nee na ni mu làqee ngërëmul waajuram di soxna Baali nee la làqee sama ngërëm non nii la làqee ngërëmam moom sëriñ Mouhamadul Mahfouz njaboot gépp mooy seen kilifa nee na njaboot gépp di moom mii mooy seen kilifa mooy seen mag mooy seen mag moo nekk ci bunt bi moo nekk ci bunt bi waaye musta juuyoo nun ci lenn waaye nee na day mus juuyoo ak ñoom ci lenn kon nag loolu yéen nga xam ne kon nag loolu yéen ñi nga xam ni yéen a bàyyi koo ci kër waajuram yéen a bàyyi koo ci kër waajuram di kër sëriñ Cheikh ak kër sëriñ Mbacke di kër sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak kër sëriñ Mbacke Mohamed maa ngi leen seereel na gërëm mu ngi leen di seereel ni gërëm na ko di sant taalibe yëpp nag nee na mu ngi sant taalibe yëpp nag